إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom ñu ngi seedina yàlla dong ye yow ñu koy jaamu di seedina yonent yàlla Muhammad mooy jaamam bi mu yónni woon ci ñun kenn wurata jaamoo yàlla lu dul loo xam ne da koo jëlee te yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mbokk suñu xutba tey bi mi ngi jëm ci benn ponk ci ponk lislaam bokk ca ponk ya ca gën a màgg mooy li nga xam ne mooy ponk zakat nañu xam ne suñu boroom bokk na loo xam ne wax na ko ahlul kitaab mu yahuud ya ak nasaraan ya bu dee jullit yee waxi noppi boroom bi mu ni wa ma umiru illa li yacbudu allaha muxlisina lahu ddiina xunafaa wa yuqimu salaata wa yu'tu zaka wa zalika diinul qayima suñu boroom mu ne man day digle wuma xanaa lu dul ñu jaamu yàlla te bañ koo bokkaaleeg dara gannaaw ba ñu taxawal julli génne lii nga xam ne mooy azaka lii day mooy diine bu jubba muy kon képp koo xam ne yaa ngi ci diine te taxawaloo julli wala génne woo azaka xamal ne yow nekkagoo ci diine ju jub ja mbokk jullit suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam day nee na diine lislaam bii dañ koo tabax ci juróomi pilier ba ca jiitu mooy seede yàlla kenn la muhammad mooy jaamam di ndawam gannaaw ba taxawal julli ñetteel ba mooy joxe azaka ñeenteel ba woor weeru koor juróomeel ba mooy aj makka nga la way jullit na bokk ci sa yéene mooy sa dund gi day balaa jeex ni nga bokk ci ñiy julli bokk ci ñiy woor nga bokk ci ñi nga xam ne dañoo aji ji màkka waaye nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy génne zakat te loolu mooy nangoo faggu nangoo yaxanal ngir bokk ci jaamu yàlla gu màgg googe na am mbokk jurit ñi ngi xutba tey ci muharram ndax li ëpp ci doomu aadama yi weeru tam xarit dañ koy taamu di ca génn zakat ndax lim nekk jeexitulu at mi ñu génn muharram di weer wu njëkk doonte ne zakat ajuwul ci weer waaye mbokk ñu xam ne zakat boobu suñu borom yàlla indil ñu nga xam ne mu nekk ponk bu mag boobee dafa ñëw ngir laabal laabal kan mooy laabal ka koy jël ka koy joxe ak société bi yépp loolee mbokk da ngay gis ne suñu borom bi muy faratal zakat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko jëlal ci seen alal yi sarax boo xam ne da nga leen ca laabal ca da nga leen ca fule ca nga ñaanal leen say ñaan da leen di dalal zakat mi ngi noonu génne ko ca alal ja day da ngay gis na day laabal mbokk lan mooy laabal laab buñ ko waxee mooy dindi sobe moo am ñaari façon laab mooy laab ga ngay def ba mën a julli tey jii heure boo xamee ni nii dangaa jëmoon ci julli islaam danaan la waaw yow day yaa ngi woon ak janaba ndax sangu nga tànk sangu woo doo mën a julli yow day sa njàpp daa toj ndax jàpp nga tànk jàppoo doo mën a julli waaye sa yaram bi ak place bi ngay jullee ak sa yére yii bu dee sobe da caa taq demal ut ndox raxas ko ba mu set ngay doog a mën a julli laab googu mbokk mooy laab ga aju ci mën a julli amma zakat mbokk zakat bu ñëwee moom dafay laabal doomu aadama bi ca la nga xamee ni nii moom mooy ak nay la nga xamee ni nii mooy xir ci alal la nga xamee ni nii mooy jaamu alal ba nga xamee ne fu ne la koy jëli waaye moom bu xoolee li mu yor mu cay yëkkati di joxe ca yàlla tax bu xoolee la nga xamee ne nii dañoo ñàkk mu profité ngir man leen a jàppale dimbali leen ci zakkaat boobu loolee mbokk da ngay gis ne dafay laabal xolam waaye du yëpp ci laabal ko bal da koy yëkkati da koy ful ndax zakkaat benn baatu arab la boo xam ne daa ëmb ñaari maana maanaa bu njëkk ba mooy laabal waaye maanaa ñaareel bi mooy ful mooy yëkkati looloo tax ba bépp alal boo xamee ne ni boroom génne na ca zakaat zakaat ba dana sipp ay bakkaaram dana dindi jukkoom yu ñaaw waaye dana yéege ay darajaam dana ko bindal ay tuyaaba dana yokk la nga xam ne mooy mbaaxam loolee mbokk moo aju ca loolee alal dañuy génn zakaat mboolam na ca jaxasoo woon ci ay njuumte lépp suñu borom yàlla dana ko far ci loolu ca it la ca des suñu borom yàlla da koy barkeel ca loolu nga la waay jullit fexeel xàmmee loolu xàmmeel li bari ak li barkeel wallahi duñu mën a yem abadan cent mille francs yu yàlla barkeel moo gën un million bu yàlla barkeelul amma zakat day barkeel desutu alal ja da koy ful moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñetti mbir ngi day maa ngi ciy waat e waaye jàpp leen ko wattu ko xam leen ne jël azaka wala sarax génne ko ci alal du ko wàññi mukk bal da koy ful amul ku ñuy tooñ nga muñ ca yàlla tax lu dul yàlla yëkk ci say daraja amul kenn ku ubbi bunt di wër rek di laaj nit ñi ngir dajale lu dul yàlla ubbil ko buntum ñàkk lii mbokk moom la ab jaam di war a xam su ko defee yow jullit heure boo jógee ba di xalaat génn zakat bokk na loo xam ne wam nga bàyyi xel mooy alal ji nga yor kot moo moo ko de un million la un milliard la moo moo ko de suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na wa aatuuhu min maalillahi lazi aataakum jox leen ña aajo waa alali yàlla jëm leen jox alal ji alalu yàlla la yow kay dañ la koo dénk ab diir moo tax borom bi mu ne wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fihi alal ji ab diir la la ko yàlla jox léegi nga dee ñu séddale ko ña nga xam ne ñoo lay doon amma boo ñëwee nag te borom ba subhanahu wa taala bépp dërëm moom daan la laaj foo ko jële ak foo ko delloo mbokk zakat mi ngi noonu jullit heure bu koy joxe xolom séddu guyi mu ànd ak kontante lool ngir bàyyi xel na ah man de yàlla baaxe na ma ñaari yoon yàlla baaxe na ma may ma alal ba am naa sama soxla faj naa ko ba am lu ma denc ren ba déwén ngir génn ca zakaat waaye it gannaaw loolu alalu yàlla ji mu ma dénk ubbil na ma ci bunt boo xam ne dana ca far samay bakkaar yëkkate ca samay daraja tax ma jokk ca samay mbokk loolee mbokk di mbégte bu rëy boo xam ne julit da koy am heure buy génne zakat looloo tax mbokk dañ naan zakat da day laabal kan lay laabal dana laabal borom alal ja dana laabal alal ja waaye dana laabal it ña nga xam ne ñoom lañ koy jox mbokk ñooñu nga xam ne seen loxo jotul gannaaw ñu gis ñoo xam ne ñi ngeeg seen alal da yëkkati kër yu rafet ya ak woto yu rafet ya loolee mën a jur iñaan seen diggante waaye bu dee gëstu nañ ñooñu néew doole lañu am ñu cay jël di leen ca jox iñaan ga day daal di dem su ko defee ñu yéeñu leen seen alal di leen ñaan yàlla sàmm leen yàlla barkeel leen ndax da ngay xam ne ma sàmm mii kat ak dundam sama intérêt la ndax fu mu toll mi ngi may nemmeeku ci alalam loolee kon mbokk gis ngeen zakaate ngi noonu day laabal fañ ko jëme mbokk zakat day laabal société bi ba bakkaar yu bari mën fee jóge na am du lay ci kanamu yàlla waaye ak bari ay jigéen yuy wër di njaaloo ngir dañoo amul lenn loo xam ne lu ñu jàpp amuñu ko leen dimbali ana ñaata jeune ñooy jóg deux heures du matin di yéeg ay miir di sàcc ay la nga xam ne ay gaz ak yu kenn xamul la ko waral mooy dañoo amul lenn loo xam ne ca la ñu jàpp ana ñaata doomu aadama ñooy def ay njombe sunu ndaw ñiy dugg ci océan bi di jaay seen bakkan ngiree dañoo amul lu ñu jàpp ci seen réew looloo tax ba mbokk génn zakkaat nañ ko war a génnee loolee day doon laabal la nga xam ne mooy société bi ci jëf yooyu nga xam ne dañ koo tudd yëkkati société bi daal di koy doon loo xam ne nii lu ñuy barkeel la ba moo tax ba boo xoolee la nga xam ne nii moom mooy gouvernement Sénégal at yi passé am na benn projet bu ñu tëraloon di xalaat ne képp koo xam ne da ngay génn zakat loolee mën nañ koo génne ci sa impôt gannaaw ba ci mbokk yi defee ab gëstu gis nañu ne mboolem li ñuy fayee ko impôt ci Sénégal bu doon tene ne ñi am alal ci Sénégal ñi ngi koy génne normal moo ëpp fuuf la nga xam ne mooy impôt yooyu loolu moo tax ba mbokk julit xam leen ne société bu mu mën a doon suñu bëggee mu laab mu sell mu jëm kaw solution ba ci yàlla indi woon mooy zakat waaye xam leen ne mbokk julit zakat boobee la ëpp ci doomu aadama yi duñ ko génne buñ ko génne it xamuñu fuñ ko jëme loolee ñu bàyyi ci xel bu baax amma suñu borom subhanahu wa taala ay yow mi nga xam ne da ngay génn zakat bégal ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nee na wa sadaqatu burhan lii nga xam ne moom mooy zakat ba ngay génne lay la ci sa kanamu boroom muy dëggal na yow day sa ngëm baaxoon na yow de ko gëmoon yàlla nga ba loolee day doon loo xam ne nii daf lay jural ngërëmal yàlla waaye yow mi nga xam ne nii danga sàggane génn zakat e waay nga la waay bàyyil xel la nga xamee ne nii suñu diine ji leeral na ko suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam leeral ko alquran leeral ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ngalla waay bul jàpp mukk ne ñii nga xam ne nii dañuy denc or ak xaalis te duñ ko dépensé ci yoonu yàlla suñu borom mu ne ñooñu bashiruhum bi azabin alim bisima ngi ñëw yonent bi alayhi salaam détaillé ko nee na képp koo xam ne da ngaa dencoon alal alal joojee doo ko génn zakat la nga xam ne mooy valeur ba daañ ko jël ci la nga xam ne ni mooy or ak xaalis tàngal ko ci biir sawara bam tàng jër ñu cay ñaas sa kanam ga di ca ñaas sa wet ya di ca ñaas sa gannaaw ya ci diirub juróom fukki junni at naan la sa alal ja nga dencoon mi ngi nii suñu borom yàlla lam wax ne bul jàpp ne ñiy naye seen alal yiw la ñeel leen bal musiba ñeel leen daan leen ko caqal yowmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ji yàlla dénkoon alal te du ca génn zakat su taxawee place bi si penc day tag bu mujj rek benn ñangoor daal di jóg laxasu ko su mattee lex bi wëlbati ko matt beneen lex ba naan ko man may sa alal ja nga génnewul woon azaka man may sa alal ja nga xam ne da nga koo dencoon loolu mbokk mi ngi noonu waaye mbokk it xam leen ni bokk ne benn société lay tax alalu société bu du barkeel mooy ñàkk génn zakat nawet yi du barkeel mooy ñàkk génn zakat ñàkk génn zakat dana tax taw du am ñàkk génn zakat dana tax taw bari yàqal doomu aadama yi ca la nga xam ne mooy meññeent nekkul du ca am lii mbokk di mbir yoo xam ne ku ne ci ñun war na cee góorgóorlu jëm cee bàyyi xel kemtalal kattan yow jullit nga bàyyi xel bi ngay ñëw ci àdduna indi woo dara booy dem doo yóbbu dara sa borom yàlla moo la may sa borom yàlla moo la dénk ca sa borom yàlla moo la dikk la nga xam ne ni moom mooy pay su ko defee zakat boobee daañ ko génne ci ñeenti mbir la ca jiitu mooy or ak xaalis ñaareel ba mooy la ñuy bay ca tool ya ñetteel ba mooy la nga xam ne nii mooy jurga ñeenteel ba mooy li nga xamee ne nii mooy marchandise mi ngay jël di ko jaay su ko defee yow julit boo bokk na ci la nga xamee ne nii boroom xam-xam yi dañ koy wax ci li nga xam ne mooy nisaabu zakat waa ji yàlla dénkoon lu jege ay trois cent à trois cent cinquante mille nga denc ko ren ba déwén xamal ne su boobaa zakat war na ca zakat boobee su dee it da nga amoon looy jënde ka jaay loolu ngay jënde ki jaay romb na som boobu ñu wax nga denc ko ren ba déwén su boobaa da ngay xool marchandise ma naka la toll la nga denc ci alal naka la toll nga boole ko diviser ko par 40 zakat yomb a génne lool utal machine calcul amoon nga 1 million divisé par 40 égale 25 000 25 000 yooyu ngay génne zakat loolee mbokk bépp alal boo xam ne daa cosaanoo ci sa alal da nga yoroon sa alal moo ko liggéey su boobaa kenn du ca xool ndax am na at ak amul at ngi mel ne borom bitig bi walla ka nga xam ne nii dafa yoroon ak jur amma bu dee alal ji jógewul ci alal ji nga liggéey masalan un salarié salarié bi daa am alal di denc weer wu dee ñu fay ko loo xam ne ci feneen la jóge ku mel noonu lépp loo jot ci alal tànk amagul at ci yow zakat waru ca waaye xamal ne bokk na la gën a noppale yow jullit mooy nga am benn waxtu booy génn zakat ci at mi waxtu woowee bu jotee la nga dencoon ak li am juróom-ñaari weer li am weer ak li ñëw démb yépp nga boole ko rek génne ko zakat benn yoon loolu moo lay gën a noppal moo gën te faqir ya te it mooy ëpp tuyaaba te la nga xam ne mooy yow la nga def ay yéen mbokk julit nin ko waxe sànq na am lu bari ci doomu aadama yi xamuñu ne dañoo war a génn zakat ñu bari ci doomu aadama it buñ ko génnee duñu xam fuñ ko jëmee ca moo ne day suñu borom yàlla jalla wa ala leeral nan ne ko ci téeréem bu tedd bi nee na la nga xam ne moom mooy zakat ña nga xam ne ñoo ko moom mooy faqiir ya ak miskin ya faqiir ak miskin mooy kan mooy képp koo xamee ne nii la munta ñàkk ci dunduk doomu aadama fa mu dëkkee la muy lekk la muy solo la muy fajoo mënulu ko boppam donte ne mi ngi liggéey waaye la muy liggéey mënul rek la loolu ku mel noonu manes dañ manes na koo dimbali ngir complété ko ci zakat bi gannaaw ba ña nga xam ne dañoo féetewoo nekk ay agent di dajale zakat boobee la nga xamee ne moo ca des mooy ña nga xam ne dañoo ragal ñu génn ci diini wala ragal mooy ay tuubeen yu bees ñu leen di nax ngir jox leen alal ngir ñu sax ci diini muy al muallafatu qulubuhum bokk na ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci ak njaam bëgg a joxe alal ngir gore bokk na ci ña nga xam ne dañoo am ay bor bor yoo xamee ne nii dafa aju ci lu munta ñàkk ci dunduk doomu aadama waaye du n'importe quel bor tey jii doomu aadama yi da ngay gis ñu ëpp ay moyens ñu ëpp ay bor bal boo demoon dëkk bu mel ne États-Unis quatre-vingt-dix pour cent population bi ñoom ñépp dañuy dund ci ay bor kon bor yooyu ñu wax du bëri otee ki décor yi kër ak voyage ki nangam nangam laa wallahi kee daa am ay bor ngir amul lu mu dundee kee daa gàddu ay bor amul lu mu fayee ay location kee daa am ay bor amul lu mu jënd ordonnance bor yu mel noonu moo tax ñuy wax te it day doon bor boo xam ne waa ji amul pexe bu mu ko fayee ñu jox ko ci zakat mu fay ci loolu gannaaw ba ña nga xam ne dañoo nekk ci yoonu yàlla di jihaad ngir kaddu yàlla jëm kaw allahuma lu dul borom xam-xam yi boole nañ ca ña nga xamee ne nii dañoo jël seenu dund jagleel ko di jàngale diine yàlla ji ngir kaddug yàlla jëm kaw loolee ñu jox leen ca cërub loolee ñu tuddee fi sabilillah gannaaw ba it borom bi subhanahu wa taala ñi nga xam ne dañoo jóge ci yeneen réew tumuranke ñu mel nii it mën nañ leen jox ci zakat ba baa ñuy mën a dellu ci seen am-am ñii la yàlla joxloo zakat képp koo xamee ni nii bokkul ci ñii ngal la waaye ak jegeeg ak xarit bu mu tax nga jox ko zakat yow mi nga xam ne waa ji daa jàpp ne yeyoo nga zakat mu jox la ko ay waay boo ko yeyoo jëlal boo ko yeyoowul yàlla ubbil na la jaamu yàlla zakat boobu xoolal ña ko yeyoo nga delloo leen ko su ko defee nga am tuyaaba ju tol ne ku ko génnee moom la am waaye ngal la waaye bul dem mukk ci bitig ba ñu jox la weccitu jàmbur nga lekk ko naka noonu it buñ la jox mukk zakat nga lekk ko fekk yooyu woo ko bàyyi masakine ak fuqaraaw ya loolee di mbir boo xamee ne nii ku nekk war naa góorgóorlu bàyyi ci xelam fu mu mën a toll gannaaw ba yow mi nga xam ne da ngay génne zakat ee waaye xamal ne yaa ngi jox ay seeni borom la ñu moom bu ma tax mukk nga puukaru seen kaw bu mu tax mukk nga ngistalu ca bu mu tax mukk nga xeebaleen ca loolee suñu borom mu ne laa tubtulu sadaqaatikum bil manni wal aza kallazi yunfiqu maalahu ri'a annas bu leen yàq seen zakaat yi bu leen yàq seen sarax yi ci puukare wu ca ñi ngeen koy jox ci di leen lor yéen a ngi mel ne kon kuy joxe alalam ngir ngistalu mbokk lii lépp day mab la nga xamee ni nii mooy tuyaaba ja ca nekkoon su ko defee kon mbokk lii mooy la nga xamee ni nii bépp julit war naa góorgóorlu kémtalal kattanam ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla boole ko ci jaam yi nga xam ne dañuy génn zakat waaye ñooñu koy génn it mu ñaanal leen xam na la ñuy def defuluñ ko seen bopp wallahi société bi yépp lañ koy defal képp kuy génn zakat mi ngi dimbali boppam mi ngi dimbali société bi yépp ku am alal lànk bañ koy génn zakat mi ngi lor boppam mi ngi lor société bi yépp mboolem ay catastrophe yi nga xam ne day am ci kaw suuf inondation yu dul jeex maral bu dul jeex feebar yu dul jeex bokk na la ko gën a waral mooy ñàkk a génn zakat wala ba nga ko génnee delloo woo ko fañ ko war a delloo ñu ngi ñaan suñu borom jël waala yal nañu yàlla boole ci jaamam yi génn zakat wala avant ñuy dajeeg moom mboolem ku koy génn ci ñun yal na yàlla nangul ko barkeelal ko ko mboolem tuyaaba ju ko ci yàlla jagleel yal na yàlla jagleel ñu ko yal na yàlla laabal ñuy génne zakat laabal seeni alal yal na yàlla laabal la nga xam ne mooy société te wërsëgal ñu yiw àdduna ak yiw àllaaxira lépp loo xam ne nii ngërëmal yàlla la ci joxe yal na yàlla jagleel ñu ko jagleel ko mbooli mi jullit allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annar allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin allahuma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaba annar برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأتنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تنصر علينا وآسرنا ولا تؤسر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين